bul fàttee abonné ngir mooy tax ngar man di jot suñu vidéo saa su ne bismillahi rahmaani rahim barke borom Touba Lamine jógaat na dellu fab ab xalimaam ngir kañ murit ba ñépp seedeek tedd ngaam Lamine jógaat na dellu murit ba ñépp seedeek dëggal ci ndawam gëm Bàmba te bëru weet ca càmm ñu dëkkam baax te jaay mbiram jëndee ngërëm te yaatu tey dogi gàllankoor yu mel ni saatu te jaay mbiram jëndee ngërëm te yaatu tey dogi gàllankoor yu mel ni saatu gawar gawar jaali batul maraaxi bi fii ajilin ka ajilin li raaxi bi kawe nga ngir jaali batul maraaxi bi fii ajilin ka ajilin li raaxi bi jolli nga ngir nooru tegal daarayni fi xidmatil xaami anil aarayni moo teel a jóg jukkib jukkeem tafarlu giim sax ci durus ak yor kurus jëm ca xaddiim bi nag durus ak ay sikar ci sa kurus ci yi nga sax taloo di def luy taxarus seex am sa mbàkke asadul xadiimi mooy gaynde bàmba gaynde gee ka yéeme seex am sa mbàkke saayibu tabdiini faaxa jamiaan jiili fi tabdiini gaynde sëriñ ba sib na fiye ca jaali ba rab yépp dal nañ moo di buurub àll ba gaynde sëriñ bi sib na fiye ca jaali ba rab yépp dal nañ moo di buurub àll ba gayna njoloor nga buur nga yow sab àll amul ku lay lëjël wéyal ba jàll feeñal la feeñ rekk a waral sa lépp feeñ ñëpp a ngi daw wut si la ngir bàmm nga xeeñ zurriyatan tayyibatan tujaddidu ndax janabiyal mustafa tajtahidu zurriyatan tayyibatan tujaddidu ndax janabiyil mustafa tajtahidu moo doon mbootum baay ba seex Sohaybu ci alquran boole ki mbir yu xaybu tarbiya yaa ci wuutu seexi saalihu alayhi aska salawaatin tusnihu dëggal bëggal nga Cheikh Salih amoo ay aybu dëggal nga yaakaari Serigne Souhaïbou bëggal nga Cheikh Salih amoo ay aybu ndigal nga def dëggal mu lay sànni ca kaw dëggal ko nekk sagal la tax ngay gën a raw kawe nga ngir dëggal ci jéem a yaatal bëggu xaddim ba foog ngërëm rafaatal li ngay liggéey xamoo ci sonn ak tàyyi dañ nga lu nekk yow taxul nga bàyyi taweg sa hitte moo waral sa lépp tey tuumay maraqib yaa waral tey lépp fay wàcc ba tolloog ndaw ñi ngir tàggat ci farlu ak durus ak ay bégal leen tàggoog nelaw di woote ay guddi durus sa yëngu ak sag dal ci bàmba la fés fés nga ni jant leer nga leeral fépp ñépp a seede gaynde maa la sopp yow saf nga ñépp ñépp daw di wut la ngir xiif te yow sàqi ngërëm yi wër na la yaa suul sa jiw toog di ko bay neg yàlla ba lépp ñor ku nekk ñëw na sam la ñëpp a ngi daw wut si la ngir siyaara tey sàkku di wër sa bépp daara nee naa la mbàkke saa yi bu taf diini xat fuxtaqul xam jullu haasal jiini yenu nga ay ngërëm te tee ñoo barke ngërëm ci bàmbaak seyxi sox yi bu mbàkke yenu nga ay ngërëm te tee ñoo yi bu mbàkke jëf rek nga xam xamoo di wax baa gestu booleeg di ciy tàggati ndaw tey saytu jëf rek nga xam xamoo di wax baa gestu booleeg di ciy tàggati ndaw tey saytu jàmbaar du xaar njaacaar bu lam mu tuy mbiram pëstéef nga teg sa ndëgg wëy ba am ngërëm xasiida rek a doon sa itte xablu ba tey sëriñ bi fàkkalakal kablu lu dul sëriñ bu mag bi yow wutoo ko lu dul liggéey bu jëm ci moom xamoo ko lu dul di ŋàbbu jukki yow yëgoo ko doo wut lu dul bàmba te sax mënoo ko lu dul di ngàbb jukki yow yëgoo ko doo wut lu dul bàmba te sax mënoo ko dégg nga lu nekk teewulaa woy sa liggéey tax tey ku lay fexe sewal day mujj géey yal na la bàmba yokk ndam yokk safan te def la gaal gu ëpp xel ku la sufun lu bàmba am ci mbégte yal na wala ngaan jëm si ci yow loo song yal na nga ko daan lu bàmba am ci mbégte yal nay wala ngaan jëm si ci yow loo song yal na nga ko daan